yar leen ci yarub lislaam bi nga xam ne yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ci la jaaroon mook saxaaba yi sëriñ bi sanc ko ñëw fekk mbooloo mi nga xam ne ba mu wootee yoonam wii di yoonu murit ñoo ko wuy si woon mu jaar ñoom ci yoonu lislaam yar leen yar ba nga xam ne moom lañ mas di dégg ne yonent bi sallallahu alayhi wa ci la doon yar mbooloo mi wax na ne li tax mu gënal ko ci suufi yi yéena ju sell jim ko sance loolu sëñ Basiru nekk na ko ci minam na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 woote bi nga xam ne cheikhul xadim radiallahu anhu moom la indi dafa doon woote boo xam ne day dëggi-dëggi lislaam di jëmmal lislaam ci lu nëbbu ak ci lu feeñ loolu yi nag doon loo xam ne moo tax ba dëkk bii di Touba doon dëkk bu am solo doon dëkk bu am wàccuwaay ci biir lislaam lislaam googu nag di fi jëmmu di fi feeñ fii ci dëkk bi ci bërëb yu bari ci ay jàngukaay yu bari waaye rawatina nag ci ay jaamukaayu yàlla bi ci gën a fës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 salawaatal xamsi dahban yaa akim ku ne xam ne lim sàkkoon moom mooy dëkk bi taxawal fi maanaam julli juróom kon jàkka yi limu na limu goo xam ni buñ xoolee ni ñu lime jumaa yi mu am ab diir kon loolu boo ko xoolee ci diirum ñaar fukki at ak ñaar ndax bu ñu leen di ñaar fukki at ak ñaar jumaay sëñ Mourtala mu fi jëkk a ubbi mi ngi ko ubbi woon ci 1997 kon boo xoolee 97 yow mi yor sa machine di xool ba ci 2018 bii ñaar fukki at ak ñaar la lay jox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 day nekkoon xalaa ilmiya bërëbu xam-xam euh, bërëbu jaamu yàlla bërëbu njub bu ràññu ko lool. ci période boobu la digale kon Cheikh Mouhamadul Moustapha mu sañci Tindodi ñu di ko sulma ab Cheikh Mouhamadul Fadel mu sañci Ndindi e naka noona sëriñ ma sàmba moom itam ci ñoom ci ci ci mooy ñeentee li ñoo ñu wax moom it mu ci e Daarul Karim e naka noona cercle bu njëkk bi sëriñ Massamba Kanni Daarul Xadim Mamor Diara Cham e sëriñ Makumba Kebe Kër Kabbu dégg nga e sëriñ Modou Mokhtar Mbay Kéré Kéré Mbay dëkk bu nekk sa diggante ak Touba ca fa nga yem 7 kilomètres la ñoom ñëpp ndax kenn ku ci nekk dala wax na sama kër gi ci tubaa na nga fi tàmbalee di jàng suuratul baqara boo àggee ci ay sangam loolu moo waral ay mètre la ñuy rawaatee waaye ci nja eh, gaawante njàng mi waaye kilomètres yi boo ko takkee benn la. ginnaaw bi nga xam ne sëriñ bi jógee na fi nag di Cheikh Ahmadou Bamba Khadimu Rasul murit yi dañoo wéyaloon jëf ji nga xam ne moom la leen sëriñ bi digaloon te mooy jëfi lislaam ak tasaare wooteem bi ngir gën a jëmale mbir moomu kanam nag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 ci fi mu cité wu et référence la ci wàllu googu ndax taxawaay bi ci seex Moustapha aman wax naa ko ndax bi mu ko sañcee wax naa li mu waxan na nekk dëkk boo xam ne la dafa wax ne borom Touba dafa waxan ne kat et fépp fu ngeen sanc ku ngeen gàddaayal ànd dem fa wala mu gàddaay fekk si leen fa na ngeen fexe ba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 dëkk yi mu jëkk sañ ci Saalum nag bokk na ca fu ñuy wax Madinatu Salaam ca Pakacaar wetu Pakacaar Pakacaar moo ca weeru Ndofane dëkk boobu sax nga xam ne boobu yàgg na boobu sëñ Basiiru sax du du mag lool ci ci saahir dëkk boobu sax moo ko moo ko lëkkale ak Poroxaan moo tax mu daa dem Poroxaan sëñ bi jox ko ci digal muy toppatoo dëkk ba ba fi mu ne nii dëkk ba mu ne ci loxol Serigne Bachirou mu wutu fa waa kër Sëñ Touba yëpp ba ku ko fi nekkal nekk jëw nañu Poroxaan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 waaye référence it ci wàllu développement beneen rakkam it di Cheikh Sidil Muxtaar xam ngeen ne ñu gën koo xam ci maam Cheikh Anta Gaawaan am na ñaari dëkk yoo xam ne tey benn bu ci nekk tey référence la tey mu di Gaawaan giñ koy dàkkental borom Gaawaan ak Touba Toul ñaari dëkk lañ yoo xam ne ba tey kii gën a ràññeeku la Touba Toul xam ngeen ne première marché hebdomadaire bi nga xam ne moo am ci zone Bawal Touba Toul la woon tey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 parce que suñu motu laa dafa gëmoon li ñuy wax nationalisme dafa gëmoon ni nit war naa mën a amal boppam dara dara ci biir réewam moo tax loolu mooy li am solo woon ci wàllu xam-xam boobu boo seetloo ci buntu école yi booy dugg ndaam nga xam ne mooy almadrasatul um mooy école bi nga xam ne mooy mooy école bu mag bi booy dugg da gis ñu bind ci aaya boo xam te wa aiddu boobu yaakaar naa depuis 11 septembre foo ko jàng ñu bari dañuy daw ndax baatu irhab muy terrorisme tur ci la alxuraan indi foofu ci aaya boobu turhibuuna bi aduwwallaahi wa aduwwakum waaye suñu murtalaa ci déggam xool ni mu firee aaya bi moom defu ko ci fa ñuy bombardé de waaye fa ñuy jàngi xam-xam la ko def waaw fa ñuy jàngi xam-xam la ko def wa aiddu lahum na ngeen préparé xale yi masaratu min quwatin lu ngeen am kattan ci ngeen préparé ci ñoom am kattan am doole mën a dem xeexi moom mu jàpp ni kon la sëriñ bi waxoon ni inni ujaahidu bil ulumi wa bit tuqaa ci xam-xam ak ragal yàlla ci lay xeex jëm nga sëriñ Soxaybu Mbàkke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 kon loolu am mu mënoon ab mu def ko diir bu yàgg nag ndax da cee teel a dugg ndax yaakaar naa wax nañ ne 1948 wala 40 49 waaye yaakaar naa 48 moo gën a lëng maanaam daal moo gën a wér lañ wax ci la tàmbali jàng alxuraan jàngale alxuraan ba nga koy man mu ko mu ko daan taqal boppam di ko di ko defal di ko defal boppam nga xam ne. ñépp njëkk ñi moom leen jàngal boppam jàngal bañ ma ko alxuraan jàngal leen xam-xam yar leen yaakaar naa tey jii képp ku jaar ci loxoom tey bu waxee rek nga xam ne kii borom xam-xam la tey ku kuñ yar la kuñ defar la te loolu moo am solo kon lañ la ay ay ay nawleem mooy doom Sëñ Tuubaa yi lañ séntu woon ci moom ban doyloo ko seen njaboot defe ci loo xam nii tey kawe na jor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 loolu ci ndigal suñu Tuubaa la ko defee la ko fa yóbbu itam mooy li yóbbu mbooleem kilifa yu murid yi te dëkk yi ñu ne mooy jaamu yàlla liggéey yar njaboot ga ñu am ba mu fa nekkee itam ci ak farloom ci la sancaate yeneen dëkk yi ñu ko waxee sànq mel ne dëkk bi ñuy wax Taysiir dëkk bi ñuy wax Mbàkke Baar yi te yëpp itam ak njabootam nekk fa la mu fa naaloon ba tey jii njaboot ga fa ne ña nga ca loola mooy nekk ci lu baax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 sëñ Massamba sañcoon na fa ak béréb yu bari sax yoo xam ne boo ko limee yu bari lay doon. diggante Cheikh Issa Diène ak Xaadimu Rasuul radiyallaahu taalaa anhu fu ngeen mas a gis mu sañc fa suufi it liggéeyal fa Sëriñ Tuubaa ko fa yóbbu waaye du liggéeyal boppam ba mu jógee Mbuur Kajoor la tàmbalee te Kajoor yaakaar naa lu ci bari ci région Thiès la di dem ba ñëw Mbuur ci ginnaaw Thiès di dem ba ngeen ngi new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 bi Cheikh Ibrahima demee ba egg làmbarene googu fekk fa Samba Ndiaye moom moom bi mu déggee ñu ne ko doomi sëñ Touba dafa ñëw rek danga du doomi sëñ Touba sëñ Touba ndax sëñ bi waxoon na ma lool fekk na booba genn garabu màngoo fa des góor gi booba am na juróom ñeent fukki at ak juróom benn màggat na booba waaye teewut mu continuer di toog foofu ko sëriñ bi bàyyi woon rek kon day mel ni sëñ bi diggee woon na ni dina fi dellusiwaat mottu li mottu li ab liggéeyam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 njëkkër ma jéey dafa béy dugub gerte ak ñebbe ak dajaanga ak yu ñu àndal mu jóge njëkkër ma jéey ñëw sanc Daaru Rahim dafa def noona jóge Daaru Rahim ñëw sanc